l'observateur ci li mu ñëw reddition des comptes mu jàpp ne nag ñii di ministre wu Macky Sall soo moytuwul leen di waaj moo di ndumb siin. ah mais comme ni nga ko waxee en fait. est-ce que am nga gis-gis bi ak l'observateur. waa mais parce que bu ñu sukkandikoo situation bi ni mu demee ak El Hadj Malick li mu wax donc xëy na bu ñu fa tolloo du du bett yenn ci Sénégalais yi d'autant plus que am na ñu bëri ñoo xamante ni. yoon laf leen daal di épinglé ci ay rapport yoo xamante ni voilà et ñoom comme ay anciens ministres lañ am nañ cours bi nga xamante ni moo habilité pour atteler nekk fi pour le moment donc dinañ ko taxawal xëy na bu fekkee Pastef euh, daal nañu gàddu li nga xamante ni moom mooy euh, raw gàddu gi euh, maximum war nañu am lu mu gàtt gàtt benn cent députés et plus pour mën a taxawal li nga xamante ni moom mooy cours googu bon beneen côté bi aussi ñoom si boppam xëy na ñu ngi may lay wala ñenn ñi fu ñuy xalaatee loolu d'autant plus que ay anciens ministres rek la ñu gis ci ay liste ay tête de liste coalition yëpp boo xoolee pratiquement ay anciens ministres ñoo ci nekk xale yi nga xamante ni ñu ngi woon ci yenn parti yi muy APR muy PDS et autres boo xoolee gis ñu gis ñu leen ci ci ci mbir mi ndax anciens ministres yooyu noonu li tax ñu dem rangé wu ci ay ci ay coalition bokk euh, ci lis yi ndax ñoom dafa am lu ñuy lu ñuy lu ñuy ragal ou pas donc ñu gisee situation ni muy ni muy dundee dañuy mën nañ xalaat loolu aussi parce que wutal ka lay du yomb et puis élargement lañ li mu fi jot a wax ak rapport yi nga xamante ni jot nañ koo génnee jëm ci euh, wàllu FMI ak euh, déficit budgétaire bi nga xamante ni président Ousmane soo ko lim ci wax ak tuuma yi mu tuuma jëm ci ay ancien ministre ku ci mel ne euh, ku ci mel ne Amadou Ba Moustapha Ba et autres Euh, ñoom ñëpp mu jàpp ne dañoo détourné ay xaalis yu bëree bëri donc mine de rien aussi euh, mën nañ jëm ci yooyu mais nag bon ndax dañuy dem prison ou pas xëy na loolu moom yoon moom moo koy définir. Mhm. mais mine de rien euh, mine aussi nit ñi dinañ dinañ xalaat ni déglu dina am jaabante en tout cas ci wàllu yoon dina am ndax boo xoolee Lat Diop bi nga xamante ni jamono bii mu ngi ci loxo yoon te li ko fa yóbbu xam nañu départ bi affaire civile loolu woon benn nit moo ko daal di mais fa mu mujjee. Euh, gis nga ni affaire LONASE en quelque sorte bokk na ci li tax ñu téye ko fa nii nii euh, place ko euh, en mandat de dépôt donc voilà loolu du bett kenn buñ ci eggee mais jàpp naa nag du du jamono bi en fait. mais est-ce que mënuñu jàpp ne aussi ak sortie yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si tukkee si ñu gàddu réew mi sant yaa ngi lim sànq sortie El Hadj Malick gis nañu aussi si palateau yi ñi farak ñoom daanaka loolu dañ koy défendre est-ce que du mujjee doon. Euh, programme de campagne jëm ci élection législative yi ñu dëgmal c'est-à-dire dem ne sénégalais yi ñu fale dinañu teg benn haute cour buy mën a juger Macky Sall ak ñooñam bon bu nekk exclusivement thème de campagne mais dina bokk ci quand même ci campagne bi dina bokk ci li ñuy li ñuy wax surtout Ousmane Sonko xam nga digganteem ak ñoom instant bi nag euh, mu ngi waajal campagne bu baax te la leen ni moom ci ay discours am dina ci li mu euh, wax ci li nga xamante ni moom mooy ci rapport yi fi jógee ak budget Sénégal bi ñu ko caxat caxatee également jàpp naa ne Ousmane dina basé wu ci loolu wax ni ñii ngeen bëgg falaat wala ñii boo leen fi falaatee ñii ñëw luubal àll réew mi donc forcément da da ci da nekk parce que wax nañ ko ba pare loo xamante ni xëy na wax nga ko mu indi Sénégal yu bëri tiit ci jaaxle ñenn ñi naan dañuy euh, dafay boru ku nekk 900000 ça veut tout simplement dire que ni ëllëg ëllëg Ousmane Sonko bu demee campagne ak ay ministres dinañ jël loolu tamit boole ko ci li nga xamante ne moom mooy communication bi mais ñee aussi dinañ wax ndax dinañ Ousmane Sonko moo fi waxoon Euh, njiit duñu ko jox assemblée du euh, ko jox assemblée dee ko loxoom da ko defee lu mu bëgg def rek lay def mhm. loolu également mën nañ ko vaar ci côté boobu donc euh, c'est de bonne guerre en fait c'est de bonne moom question mooy ndax Sénégalais dinañ suivre si logique ci li Ousmane Sonko di wax ndax Sénégalais dina suivre si Pastef li ñuy wax ni dañuy jàpp ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo lu alal réew mi et que moment actuel ci moment bi ñu nekk nii ñi ñu jot a ndax sénégalais yi kontaan nañ ci en tout cas la grande partie mën nga jàpp ni la grande partie des sénégalais mën nga xalaat ni en tout cas ànd nañ ci ànd nañ ci en quelque sorte parce que mine de rien aussi on parle des des milliards aussi te sénégalais yi bëgg nañ milliards yooyu ñu xam fu mu fu mu nekk. Hmm. est-ce que loolu jàpp nga ne moom mooy priorité ba ñu war ko mën a ci élection législative yi ñu yi ñu dëgmal. non bon du priorité. à 100 pour cent topp bi euh, lugal gi ñu mën nañ jël tur topp mais récupérer xaalis bi xëy mooy priorité bi mais topp bi dañuy topp mais ñi duñ topp topp rek dañuy sa topp bu ba gis ni ki ñuy topp ni am na lu mu laalee parce que coow lu muy bari bari Sénégalais xaalis bi la ñu la ñu soxla hmm. Sénégalais yi xaalis boobu la ñu soxla et que bu ñu jotee xaalis bi ñu xam fa lañ ko def et puis ñu wax ñu ñu récupéré en tout cas si ñi tuumaal ñu ñoo def ay détournement de deniers publics hmm. xaalis ba lii lañ ci amagul fii ak fii lañ lañ ko nar a def xëy na bu bi loolu moo ci am solo. mais bu ñuy hmm. jàppee pour jàpp te waxuñu Sénégalais yi communiqué wuñu Sénégalais yi li ñu jël si ñoom et li ñu jot ni dañ ko luubal si àll réew mi nekkoon li nga xam te mooy pàcc bu ñu jagleeloon une commande tey ñu ñëw ci deuxième point bi soxal projet bu PASTEF euh, lu jëm ci présentation référentiel yi ñu jàpp ko fukki fan ñeent euh, ci weeru octobre bi ñu dëgmal foofu la ca CICAD euh, bi nga xam te mooy centre force vive de la nation yëpp dinañ fa teew moo xam muy société civile moo xam muy opérateur économique ak ñëpp daanaka dinañ fa teew ñu mën a daal a définir lu toll ci quatre axes yoo xamante ne yu stratégique la jëm euh, ci li nga xamante moom mooy seen euh, projet de transformation bi ñu teg jëmale ko Sénégal 2050 euh, loolee nag di tourner ci autour lu soxal mbiru gouvernance ak engagement panafricain mu mel ni dañu bëgg a renforcer ñuy dippee état de droit ak institution publique yi loolee tamit ne moom mooy soppi réew mi di Sénégal jaaree ko ci projet wu Pastef baneenu poñ bi bokk na ci lu jëm euh, ci li nga xamante ne moom moo jëm ci lu ñuy dippee wàllum aménagement ak développement durable ñeel réewum Sénégal loolu nag mën nañ ci dugal tabaxum ay infrastructure di dëkkuwaayu yees ak yoon yu baax ak fi nga xamante ne moom mooy euh, fi nit ñi di mën a jaar di mën a dem defi seen i liggéey ci anam gu mu mucc ayib leneen aussi bokk na ci li fës ci boobu lépp mbir mooy investissement bu ñu mën a def bu ñu nar a def jaarale ko ci éducation di jàng meeg njàngale mi ak formation di tàggatu gi loole tamit bokk na ci lu gën a fës ci euh, point référentiel yi nga xam te ne bëgg nañ ko tekk ñeel projet wu Pastef loolee nag ñu ngi ko war a présenté askanu Sénégal ba su fukki fan ak ñeent euh, ci weeru octobre atum 2024 donc Ousin mën nañu wax ne enfin euh, le projet tent attendu et sera disponible le 14. waaw comme ñoom le 7 la ñu annoncé woon. Hmm. mais xam naa nag xëy na ci voyage yi mu nekk ak euh, liggéey bi mu nekk jàpp naa loolu moo tax ñu pousse ko mais dégg nañ ci xibaar nii projet bi xëy na pare woon na euh, bu ba pare bu yàgg xëy na date lañ doon jéem a euh, am pour choisir date bu baax pour mën ko wan wala wax sénégalais yi expliquer sénégalais parce que cérémonie quand même de présentation bi du nouveau référentiel des politiques publiques Bassirou Diomaye Faye dafay day day day présent ci salle bi salle centre Abdou Diouf bi je pense que la ñu koy defee Ousmane Sonko également day ñëw donc euh, événement bu toll noonu donc boo xoolee à euh, bi muy def presse euh, bi muy def bi muy pressé bi muy prêté serment ak hmm. ak événement bi nga xamante ni mooy assise de la justice bi mu amee fële ci jën naa jàkk naa bi mooy deuxième mbir bi nga xamante ni wala rencontre bi nga xamante ni xëy na am na dayo bu toll nii donc te rencontre boobu noonu mine war nga ko war nga ko préparer donc xam naa nag euh, ci à partir de jour boobu nag la Sénégalais di xam mais bon moment bi ñu choisir également. Hmm. Euh, pour def ko euh, ndax politique daf ci rax parce que nit ñi xam nañu ñu ngi jublu ci ay campagne xëy na bu ñu étaler projet bi ba Sénégalais bu nekk mën ci gis boppam Sénégalais bu nekk en tout cas xam à peu près ñii fan la ñu jëmee xëy na loolu dina tax dina am benn motivation ci Sénégalais ñu mën a dem voter pour pour Pastef donc jàpp naan ne tout est calculé amul leen loo xamante ni dañu ko def par hasard mais aussi da nga leen koy nangul parce que hmm. tamit. politique de la nation la te politique de la nation tamit moo politique génnu ci donc euh, bu la neexee nga euh, bon vu que voté guñu budget hmm. euh, te budget bi nga xamante ni ñoom moom la ñu war a doxalee voté guñ ko nekkul seen loxo donc jàpp naa ne fii ba avant ñuy voté budget bi war nañu war nañu mën a wax Sénégalais kañ la donc date bi